defoon nga ko ci ab safaan nga rëccu ko ne dootuma ci delluwaat ba abadan ci say noyyi ak say dellu say noyyi ak say dellu nag day dugg ci waxtu yépp waxtu yépp ndax boo ne ci waxtu ya ak at yaak heure yaak lépp boo nee say noyyi ak say dellu lépp day dugg ci biir kon su ko defee loolu mooy melokaanu tuub sëñ Tuubaa wax ni melokaanu tuub de mu ngi mel ni nga gis benn sébbu safara nga dugg ci sëñ Tuubaa xaadim rasul ne na desee nga beneen tëbin tëbin boobu nag mooy éclat ko mooy buddeeku tëbin boobu nag nga tëb génn loolu mooy tuub ndax xam naa ne dootoo ci delluwaat mukk ci biir safara sax mu ngi mel ni ñu bojji woon dugub ba xetax gi xetax gi di tàkk ndax kenn ku ne ci ñun xam na xetax na mu tàkkee day tàkk ci biir waaye ci biti da ngay yaakaar ne fay na nga jékki-jékki dugal ci sa tànk ah <laughs> sama gaay yi <laughs> laa ilaha illallah am naa ne moom woy déew de wala woy sama ndey bi daal foo toll rek ku dégg boobu nag sëñ Tuubaa nee na mooy tuub kon kenn ko ne na ci bàyyi xel kon képp koo xamante ni kii ak koo mën a doon ak koo mën a doon amul xàjji ak seen xàq yi ngay amal doomu aadama yi moo xam tooñ bi nu mu mën a domee nang ko jéggalu waaye rawatina ci weer wi nga xam ni mooy weeru promotion at bi yépp weer yi moo ci weeru promotion at bi yépp guddi gi ci ñëw guddi gi moo ci promotion mooy guddi bi laylatul xadar kon yàlla suñu borom subxanahu wa taala defal nañu promotion ci weer wi nañuy jéggalu ndax euh, yàlla suñu borom daf ñoo baaxee loo xamante ni lu rëy rëy rëy rëy la xeet yi njëkkoon yépp da nga daan def nit bàkkaar boo koy boo koy baalu da ngay dem wax ko bàkkaar gi nan la mel nan la demee nga doog ko ne jéggal ma ko. waaye yàlla suñu borom ci baaxam ak bëgg bi nga xam ni bëgg na ko yonent bi sallallahu taala alayhi moo tax mu teggil ko loolu waaye nit ki bu daal boo ko daan tooñ bu fekkee ne am nga ah, daa njaaloo ak soxna jàmbur day dem ci waa ji ne ko ah man de damaa njaaloo nag sa soxna baal ma xàq bu fekkee ne daa sàcc dangay dem ci moom nga ne ko dama sàccoon sa alal baal ma xàq waaye ci kaw nga delloo ko nangam ak nangam lépp bépp bàkkaar booy def rek da ngay dem ba ci ki nga xam ni kii moom nga defal nga def bàkkaar bi nga dem nga ne ko bàkkaar nangam laa def baal ma xàq waaye alhamdulilahi rabil alamin sunu borom mi nga xam ni ne dañoo sàng sutura ngir jëm jëmmi seydina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam boo defee nit ki bàkkaar rek da ngay dem fas yéene nga ne ko ah man de amel naa la bàkkaar nangam amel naa la bàkkaar ci sa xel nga koy wax nga baala ko xàq kon su ko defee Eh, dañ cee am promotion ci at bi ay yooni yooni yoon te maanaam melokaanu yoonu murit tax na ba daanaka eh, saa su ne mën nga jéggalu sa nit sa mbokku julit même bu la tooñil sax mën nga ko jéggalu mooy nga def dara nga ne ko ah ku baax maa ngi tuub day jéggalu de nga fasal nga nga yéene waale ko nga yéene waale ci mu jéggal la bakkaar yi nga ko tooñ yi nga ko yëg ak yi nga yëgut ndax loolu terme la boo xamante ni bii eh, dañ koo woyofal waaye lu diis la lu am solo la mooy koo xam ni kii da ngeen a même da ngeen a tase rek comme tey ma ñëw di nuyu sëñ Ibrahima ma xaw koo gëj a gis ma ne ko ah sama sëriñ ma fasaale ci eh, dama koy jéggal waale yi nga xam ni dox na suñu diggante yi ma yëg ak yi ma yëgul ma ne ko Cheikh Ibrahima wala sëñ Tàkko maa ngi tuub tey waaw maa ngay tuub te jéggalu ci gëj a gisee gi ak gëj déggante gi yooyu yëpp boo ci fasee nga yéene ndax innamal amalu binniyaati wa innama li kulli imri im maanawa ndax julit gi rek la muy yéene rek moom lay am ci jëf ja waaw moo tax ñu ne ab julit la muy jëf yéene waral kër buuram yéefarit la muy jëf yéene waral kërub dóoram ab julit la muy jëf na jëf ti boole koog yéene ndax yéene moo ak pay jëf dee leen jëf ti boole ko yéene loolu nag promotion boobu dem na ba wax dëgg neex sunu boroom tey kër te weeru koor bi bu ñëwee dañuy dañuy ti xàkk waaye kenn kone ne nay fas ci yéene baalu xàkk ci tooñ yi nga xam ni ñoo nekk seen diggante waaye duñ ko def modd wala dañ koy def ah, aada waaw na ah, ah, aada bu rafet la sax moom aada bu rafet la aada la waaye bu rafet la waaye bu yomb bu neex la it teg ci kon su ko defee incha allah ñu gën cee bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax tabaski ak tam ak tamxarit ak korete ak weeru koor yi wax dëgg si yàlla formation la ngir nga jéggalu nit ki nga xam ni kii yaak moom yéen a bokk euh, fi ngeen nekk kon su ko defee rek ñu gën cee bàyyi. kon nañu sax ci tuub tey jéggalu bu baax a baax suñu tooñaange ñi nga xam ni ñoo dox suñu diggante suñuy moroom moroomu jaam kon su ko defee nañ ci bàyyi xel bu baax te bañ a rëy ba duñu jéggalu bañ rëy ba ñu xeeb bàkkaar yi ba ne ah garaawut bañ a rëy ba bàkkaar yi bare nga ne waaye kii du ma ko jéggalu sa xol naan la bu ko jéggal loolu yëpp iblis bu ko jéggalu ndax nangam ak nangam loolu yëpp paxeb iblis la ki nga xam ne kii it wax nañ la baal nañ la na nga jéggale te bañ a naan waaye duma ko jéggal loolu yëpp paxe iblis la iblis mooy xirta doomu aadama taxaw ca eh, xolam mu koy soxarloo di ko iñaanloo waaye nit nit nit nit kese kese kese mënut loolu ndax xolub nit dafa set ndax yàlla suñu borom dañoo compate ci li nga xamante ni mooy e, leeru yonenti bi salallaahu taala alayhi wa sallam ñun ñëpp ci la ñu ballee moo tax daanaka ku jéem a baax ku ne rek di nga baax incha allah rabbi kon comme am nañu promotion rawatina weeru koor gi képp koo xam ni kii mos naa tooñ nit na nga dem ci moom jéggalu ko waaye rawatina ci weeru koor bi waaye rawatina ci korite gi waaye rawatina ci tabaski bi waay rawatina ci tamxarit bi kon su ko defee nañu gën a góorgóorlu tey eh, jéem a topp sunu borom ndax topp sunu borom rek mooy sunu ndaw kii ni yaa ma jaxaseeg borom sama borom kër ba mu fase ma ñu dindi jox ko kii ni yaa ma rambaajeloon ba kii noonu ma ba mu dàkk ma sama palaas ñu dindi ko jox ko kii naan yaa ma boole woon ba sama ji borom kër bëggatuma saa su ne su ma ko su ma gisee Eh, sama xolam di di di di di metti kii naan yaa ma liggéeyoon kii yaan yaa ma nangam ak kii yaa ma nangam kii yaan yaa nangam kii yaan yaa ma nangam kii yaa ma nangam ñu koy jox ñi jox di jox di jox kii naan ah man de baxtu julli daa jotoon te waxoo ma ko kii naan man dangaa gisoon ne lii lu baax la nga war ma ko waxoo ma ko ñu koy jox ñu koy jox ñu koy jox ba mu jeexal tàkk allahu akbar xoolal tuyaaba yi lu mu bare woon mu dem ba jeexal ngir xaq yi nga xam ni ba ci julli sax nga nekk ak ay ngay julli ndax fa dàkkir inna dikra tanfahul muminin amaana ki ngay toogal di ju di doon ngay doon julli xam naa da ko fàtte woon waaye nga war ko ko fàtte nga yoxosu rek dem julli yooyu yëpp ay àkkale yu sew nga gis loo xam ni day gaañee ci biir tëli bi nga war koo dindi ba keneen ñëw fakastala ko yooyu yëpp ay sarax la loo xam ni nañ lu ñu war a dimbalee la léegi nag kooku ci boppam dem ba jeexal ba mu jeexalee am ñeneen ñu ñëw di ko laajaat xàq léegi nag mu ne jeexal naa léegi jeexal boobu nag mooy problème ba dañuy jël ki nga xamante ni ki mu xamante ni moom la amee la xàq kooku bàkkaare kooku la ñu jël sëf ko ko waaye yonsiya billaahi mina seytaan yàlla nañ ci yàlla musal musal ci mbooleem girit bi barakati nabil Moustapha sallallahu taala alayhi wa sallam kon ko ko defee kooku bàkkaar yi nga xamante ni moom la waa ji yor te mu ameel ko ak moom lañ koy sëf moo tax sëñ Tuubaa nee na pertement ëllëg yomal xiyaam la am yàlla nañ ci yàlla musal mooy am jëf yu rafet ba nga jàpp ne àjjana nga jëm ngay fay ay xàq ba mu jeex tàkk ba ñi nga xamante ni ñoom nga amel ak ay bàkk seeni bàkkaar lañ lay sëfaat yàlla nañ ci yàlla musal musal ci mbooleem jurit yàlla yàlla defal dégg ak topp bi barakati nabil Mustafa sallallahu taala alayhi wa salaam te jéggalu ndax xam naa ni ah, bari wax la rek waaye borom xam-xam yaa ngi ci biir eh, daara ji eh, am macha allah ah, li jum ci wax ji rek ngeen xam ne matat doomu aadama waaye li ci jub rek nga xam ne lépp sunu borom subhanahu wa la. kon pertement bi nga xamante ni moom wax dañ koy jël misaal. ci koo xam ne kii bitig lay jaay wala koo xam ne kii marchandise bu mu mën a jaay mu jaay ko nag te amu ci bénéfice kooku mooy naan perte na moo tax ñu ne perte ma ëllëg yowmal xiyam la am ndax kooku it yàlla mën na koo wërsëgalaat leneen ba mu doon millionnaire wala milliardaire wala boroom xaalis rek kon su ko defee bu yëngatuwaatee rek mën naa am loolu ak bépp fànn boo xamante ni bii mu ngi koy def. waaye pertement bii nag mooy saar su ne ngay sax ci lu baax waaye moytuwoo it safaan ba <laughs> dangay sax ci lu baax kémt lay kattan waaye moytuwoo safaan yi moom la ñu wax ni ñoom dañuy ñun dañuy jëf ndigal yi waaye dañu bàyyi tere yi léegi nag jamono boobu nag nga xamante ni yaa ngi def ndigal yi bàyyiwoo tere yi su boobaa nag euh, ak euh, mandubaat yi mooy yi nga xamante ni yu baax yi ak yi nga xamante ni mooy euh, promotion yi promotion yi mooy naafile yi yooyu mooy promotion bi ndax ku def sa farata ba pare lépp loo ci teg rek mooy naafile yi mooy promotion bi mooy bonus yi euh, kon su ko defee liñ koy misaalee mooy koo xam ne kii jaay na ci àdduna ba perte naan perte naa wala def naa nangam ba perte Sëñ Tuubaa ci lay wax ne loolu du perte ma perte ma ëllëg yomal xiyaam nga am mooy comme ni ma leen ko expliqué ci li nga xamante ni mooy bataaxal bi jàll mooy ngay yor say tuyaaba yu bare bare bare bare bare bare ñu koy ñu koy jël ñi nga amel ak ñu jël ko ba jeexal ko ñu jël keneen ñi ngeen ñeneen ñëw si ginnaawam nga ne jeexal naa ñu jël seeni bàkkaar sëf la ko loolu mooy perte bi yàlla nañ ci yàlla musal bismillah incha allah macha allah na seex saalihu mbàkke radiyallahu anhuma dafa waxoon ni nañu tuub tey sàkk sarax tey baalante xàkk lu waay yéene boppam na ku yéene mbokkum jullitam nañu tuub tey baalante xàkk tey sàkk sarax lu waay yéene boppam na mbokkum jullitam nañu tuub tey baalante xàq tey sàkk sarax lu waay yéene boppam na ko yéene mbokkam yóbbul bàngoog incha allah bismillah incha allah macha allah sayidna muhammad rasulullahi salallahu taala alayhi wa alihi wa sahbi wa salama tasliman mos nañ ko laaj ne ko yan bàkkaar la yàlla sunu borom dul jéggale sayidna muhammad salallahu salaam tontu leen ni yàlla sunu borom de bàkkaar yépp bàkkaar yépp lay jéggale ak bàkkaar bu nit mën a def digganteem ak sunu borom sunu borom boo ko tuubee jéggalu ko sunu borom dina la ko jéggal ba mu des bàkkaaru bokkaale waaye bàkkaaru bokkaale it am na ci borom xam-xam yoo xam ni nee na boo ko tuubee yàlla suñu boroom mën na la ko jéggal boo ko tuubee yàlla suñu borom mën na la ko jéggal waaye nañu góor góor góorgóorlu kon lépp loo xamante ni def nañ ko suñu diggante ak suñu borom bu ñu am rëy pour bañ koo tuub bàkkaar gi lu mu bare bare bare nañ ko tuub delluwaat ci sunu borom ndax yàlla mooy jéggalaa kon gi bàkkaar gi lu mu ndaw ndaw ndaw buñ ko xeeb nañ ko jéggalu suñu borom ndax yàlla suñu borom ah, moo ñu bind ci matadi te matadi boobu moo tax yenn saay ñu koy tooñ ñu koy tuubal it teg ci kon nañu gën a saxal tuub dañu gën a saxal tuub tey moytu it tere suñu borom yi tey jëfee ndigal suñu borom yi ndax tuub moom dafa am ay sart yoo xam ni imam ahdar yi wax na ci seexuna ahmadu bamba nettaliwaat na ko ci ki nga xam ni mu ngi koy toxalee ci imam ahdar yi yonent bi teg ci ne bàkkaar yi ñu tooñ suñu borom yépp suñu digganteeg suñu borom suñu borom dañu koy jéggal waaye suñu bàkkaar diggante nit ak nit yàlla suñu boroom du ci participer mooy yàlla suñu borom da ciy maandu ndax yàlla suñu borom du forcer kenn mu ne ku baalal diw suñu borom du forcer kenn mu ne ku baayal baalal diw ndax diw nangam diw nangam. suñu diggante nag suñu biir ak yooyu nag ak ku mu mën a doon kooku ameel boo ko baaluwul fii ëllëg àq la boo xamante ni bii incha allahu rabbi dina la ko topp ëllëg yowmal xiyaam ak lu mu mën a doon boo jaamu woon yàlla it ba àgg ci àggukaayu yu ya te nga amal nit yi ay àkk bu ngeen àggee foofu nag dinga leen fay ay àq yi bàkkaar yi ñuy def suñu diggante ak suñu moroom mooy xàkk yi mooy tooñaange yaag yépp rek ay xàkk la yoo xamante ni diggante nit ak nit la kon kenn ku na ko moytu te xam ni yàlla moom yoonam nekkul ci yooyu yoonam nekku ci waaye suñu digganteeg suñu bopp suñu digganteeg suñu mbokk nañuy jéggalante te jéggaluwante képp koo xam ne kii tooñ nga nit nga yëg ko nga ñàkk koo yëg nanga ko baalu xàq mu baal la moo gën nga naan ah kii de li ma ko tooñ garaawut kii li ma ko def nangam sangam maa ngi jaamu yàlla kon su ko defee yaa jaamu yàlla boobu yàlla dina la ma jéggal yàlla sa digganteek moom la lay jéggal waaye sa digganteek ki nga xam ne moo la tooñ moo yaa ko tooñ yàlla suñu borom du ci dugg ndax loolu bu Tuubaa nettali na lu mel noonu ci diggante xar bi nga xamante ni daa amoon béjjén mbëkk xar bi nga xamante ni amuloon béjjén ci àdduna yàlla suñu borom nee na yomal xiyaam bu ñu dekkee yàlla suñu borom subxanahu wa taala day saxal xar bi nga xam ni amuloon béjjén mu saxal ko béjjén xar bi nga xam ni amoon na béjjén ba mbëkk xar boobu yàlla suñu borom subxanahu wa da koy eh, dañuy da da day day dindi béjjén yooyu xar boobu fayu. mu dog leen ëf ñi doon suuf ñu doon ngelaw as ñi doon ngelaw incha allah seexuna ahmadu bamba xaadim rasul wax na ni àdduna de amul pertement pertement ëllëg yowmal qiyaam lay am mooy li yonent bi waxoon rek mooy dangay gis koo xamante ni kii jaamukatu yàlla bu mag la muy jaamu yàlla guddeeg bëccëg suba ngoon waaye nag yépp rekk li muy jaamu yàlla am na tooñaange yoo xam ni moo dox ci digganteem ak jaamu yàlla yi yooyu yépp nag mu bàyyi ko ci biir jéggaluwu ko deful dara ba ëllëg yomal xiyaam ñu dekki ñëw xool jëfam yi jëfam yi bari lool ba mel ni angaaru euh, euh, gerte rek ci niñ koy waxee mu kontaan kiy ñëw ñi nga xamante ni amal na leen ak maanaam lépp lu ñuy jëflante ci àdduna rekk ay ay ay àkk lay doon yoo xamante ni yomal xiyam ay jëf lay doon yoo xam ni lu ñuy gis la fii nag mënuñoo jëf gis àkk yi gaa ci xol la nekk waaye pratiquant yi bu fekkee nit ki da la dóor wala mu saaga la walla mu sàcc la wala mu jëw la wala mu def nangam ak yépp ëllëg yomal xiyaam ñun ñëpp a koy gisandoo dañuy doon doo xamante ni lu ñuy teg bët la mais comme jëw nii buñ la nee am na bàkkaar bàkkaar bi doo ko gis fii ci maanaa bi ci àdduna waaye ëllëg yomal xiyaam loolu yëpp dañ koy teg mu ngi mel ne nga teg sa angaaru eh, gerte rek ak nga nga fas ko peese yooyu yëpp dañ koy gis tooñaa ngi yàgg njaaloo yàgg yëpp dañ koy gis sàcce yàgg yëpp dañ koy gis kon su ko defee kooku ci boppam jàpp ne moom ak àjjana rek la jëm ndax lu mu yor ci ay tuyaaba dafa bari léegi nag kii ñëw mu ne jëwoon nga ma ñu dindi jox ko kii ne fenaloon nga ma ñu dindi jox ko kii ne yaa ma boole woon ak sama borom kër ba mu fase ma ñu dindi jox ko